tey demal gaaw nga jàppi xat waaye jullit wurul toog taxandu ak njàpp toog taxandoog njàpp dansé bu rëy rëy la ndax saa yoo toogee taxandoog njàpp ku la gémmañu jàpp la ku jàpp la ku la liggéey jàpp la ku yëkkati lu bon jëmee ko ci sa kaw mu njabar la jàpp la waaye ku taqoog njàpp ku la mën a jàpp xamatut ku la liggéey du jàpp ku la njabar du jàpp ku la gémmañu du jàpp lu nit gémmañu lu mu rëy rëy gémmañ nga yàlla da koy soppi bayre ku la def lu bon tamit du du dal ci sa kaw day mel ni miir rek boo sànni bal mu delloo si waat ca ko sànni woon moo tax charia bëgg ngay takkoo njàpp ba ba nga demee bay tëdd sax nga xam ne nelaw rek a ci des sax demal nga jàpp nga yéene tëdd su ko defee su boobaa yàlla yonantu bi neen yàlla lay booleeg malaaka mu lay jéggalul yàlla ba bër set ne lu tax mu ne ko eh, li annahu baata taahiran sa jaam bi dafa fanaanoo laab nga nga tëdd benn wet ba mu yàgg nga wëlbatiku xaat yooyu yëpp yàlla ngi la booleeg malaaka mu lay jéggalul yàlla ne ndax da ngaa fanaanoo laab su ko defee feek ba ba ngay yeewoo xam nga ne loola yi wu rëy rëy la waaye boo tëddee te fekk jàppuloo te xam nga musiba yu bari ci ñu bon ñu xañaan ñi nga xam ne dañuy liggéey doomu aadama yi guddi lañ koy def moo tax sax yonent bi yàlla wax na ko ne muslul min sharri xaasixin ida waqaba maa ngi muslu ci xayu marax bu demee ba lépp dal su ko defee maam man yeeg njabarkat yeek ñu soxor ñeeg kortukat yeek kenn ku ci nekk commencé jug fasa fas ba mu dëgër nga mujj tafli su boobaa yow mi tëddee njàpp fanaanoo ko yàlla dina la musal ci njabarkat yooyu ak kortukat yooyu ñu bon ñooñu ñëpp bal la boo xam ne bu ñu dóor ci miir la buñ ko sànniwaatee rek mu dal la mu mu delluwaat ke ñoom te gis nga takkoo njàpp lu baax la te njàpp loola dara mënu koo toj nelaw du ko toj ngalawal du ko toj dem ba ci kanam nga xeewu dem tuur ndox du ko toj dem ba ci kanam nga dem kabine gi du ko toj la koy toj daal mooy ànd ak sa soxna kese moo ko mën a toj te boo ànd ak sa soxna tamit bul fanaanoog janaba ji moo gën a nekk danse soo demee ba mën noo ñàkk fanaanoog janaba ji jàppal nga héene pour fal janaba jooje mu xawla may sécurité waaye nga yore janaba sangu jàppaatoo du noona rek su boobaa yaa ngi mel ni kuy dem xare te yóbbuwuloo ngànnaay kon mbokki julit ñi ab julit dafa war a fonk njàpp yow jigéen gi may déglu soo yeewoo ba war dem ca marché ba julli nga suba nga yëg ne sa njàpp li toj na bala ngaa dem marché marché ku ne nga fa marché lu nga fa jàppal njàpp lu toy xepp su ko defee yor sa pan bi di jégalu yàlla di ko tudd di julli ci yonantu bi départ boot sa doom boo yóbbuwaale yaa xam nga dem ca marché ba yow may xëy di liggéeyi timit àndal ak sa njàpp lu toy xeeb boole di tudd yàlla ak sàbbaal ak loo xam ci lu baax jàng ko yow mi nekk ca caawoo ga na nga jàpp ba mu sell nga door a jiital say nag yàlla mën na laa luy li ñay ñay yak ak yépp man yalla man la musal ki sa nak yoya yow muy dem tol nona yow bureaucrate bi nona ab julit dafa wara takko taqoo fu mën a bu sa njàpp toje timi rek ci sa sa nga dem wat waye ab julit warul tok ngi ne waxtu jotna ayo bo ngi taxawal nga ne maye ma dem jappi loola gatcha la da nga wara préparer bala waxtu wa taxaw fekk la ci ndax kat njàpp ñeuk waxtu dañ ko soppu xaar ba waxtu wa jot ngay door di jàppu farata la waaye lu luñ sopp loola moo ëpp doole farata jooja kon